am les amis de Oser Média maa ngi leen di ziar bu baax di leen bëggee bu wér a wér di amati mbégte ak bànneex di kontaan ci yéen bu baax dina wax ni bëgg naa ci yéen bu baax les abonnés de Ose Media en tout cas les abonnés de Ose je vous remercie et je suis vraiment content de vous ça montre que vous êtes en train de nous regarder vous êtes en train de me suivre vous êtes en train de suivre Ose Media en tout cas vous les abonnés de Ose je vous dis tout simplement merci je suis vraiment content de vous n'hésitez pas de partager les vidéos n'hésitez pas aussi de euh, d'appuyer sur la cloche de notification pour avoir tous les programmes qu'on vous donne en direct en live en direct sur Ose Media Media en tout cas merci beaucoup merci beaucoup ces chers amis internautes de et médias, hommes et femmes, jeunes et vieux. Merci beaucoup. Je suis vraiment fier de vous et je suis vraiment content de vous. Tainak nag nous yi ñu indil leen jour boo xamante ni macha allah rabi ñëpp xam nañ ko mu nekk Barça muy Gavi nga xamante ni moom de terrain la foofu Gavi euh, ca Barça nekk fa ak ñi nga xamante ne De Jong ak ki nga xamante ne mooy Pedri. Gavi nag dafa gaañu woon gaañu boo xamante ni gaañu bu metti la bu ko ci terrain mu nek bo xamanteni saison le mu daf kay tok sax du euh, def li nga xamanteni mom moy entraînement du ñëwaat. ndaxte franchement li moo li li ko jotoon moom jour yu bëri yu mu dal sax boo moytul seen carrière dafay jaar jeex donc nag Gavi nag actuellement nii mbokk yi image yi ngeen di gis nii Gavi commencé waat na def li nga xamante ni ah, mooy rééducation am ànd ak ñi nga xamante ni moom mooy les kiné ah, docteur yi koy suivre mu dem nag tey jii demul ci terrain demul entraînement demul fenn waaye géej la dem ah nga xamante ni foofu euh, nekk fa ak docteur yi docteur yi di ko defal foofu ay mouvement muy def nag ay mouvement yu métti tey waaye boo xoolee sax doxinu Gavi sax dangay xool pied bi nga gis ni mu koy xaw a suuxee nga xamante ni ba léegi blessure bi des na donc actuellement nii mi ngi nek nak ci euh, di préparer wat euh, ngir mën ñëwaat en force inshallah xamna saison prochaine lay nek ndaxte instant bi ni temb coupe d'Europe mom bu ko ken kenn xalaat ak li des championnat bi aussi bu ko ken kenn xalaat nañ bàyyi xamna ba coupe euh, championnat année prochaine inshallah allah di commencé waat dinañ gis nag ki nga xamanteni moy Gavi mu dellu si ci milieu de terrain bu Barça ndax instant bi ni temb commencer na liggéey gis ngeen ko nonu mi ngi def ay mouvement gauche droite gaay ngoy tenir diko jappalé diko di pour mu meuna a dellu dans top nga xamante ne tey ji bu dellu comme ki mel ni ah, ki nga xamante mooy De Jong aussi moom it dafa gaañu Pedri rek actuellement nii moom mooy fonctionner ci milieu boobu ah, donc ça sera bénéfique pour Barça Barça mën amaat li nga xamante moom mooy milieu de terrain bi nga xamante ne allah àdduna yëpp d'accord ci mën fubalam muy Gabi l'Espagnol l'international espagnol actuellement nii nag mi ngi nekkaat ah, ci li nga xamante ne mi c'est ses profs euh, de gym nga regardez il est comme ça en train de faire des euh, des rééducations pour mieux retourner en force euh, à l'année prochaine inshallah parce que on a on nous a dit qu'il va venir pour jouer la coupe d'Europe mais le staff de Barça a dit que Gabi pas de coupe d'Europe Gabi pas le reste du championnat Gabi c'est la saison prochaine donc bientôt dans quelques mois inshallah vers les mois de juin juillet août ou septembre même Gabi sera de retour mais pour le moment il est en train de faire des rééducations